mag bi nga xam ne jàmbaar jooju nga xam ni bëggul leen lu Serigne Saliou li mel Serigne Saliou rek ko wane wu lu Serigne Saliou kooku Serigne Abdoulaye Tege mi dénk Serigne soxna Mouminatou Kébé mi nga xam ne tabarkalla bi mu ñëwee daa yokk tabarkalla nee naa ko da nga fonk doomu aadama ba fonk mala yi nee naa ko ba mbaar mee nga def ndax lan nag yi xar yi ganaar yi ne leen leen féexul leen rek njëkk leen a taral ñooñu la njëkk a taral waaye nag loola jommeewul si yoonu murit keroog bi maam Cheikh Anta bi sëñ Tuubaa jógee ci géej gi ñu ne ko foo wàcc mu ne Daaru Salaam mu ne gan gi li may njëkk a def mooy rey mbaam yi sànni ko si àll bi tabarkalla ah bu ko defee gaynde yeeg rabu àll yi tàmbali yi te nga ne ko la maam Cheikh Anta njëkk a def kon nag loola mooy logaraat ba soxna Mominatu Kébé tabaarkalla woote màggal gi bi woote màggal gi tabaarkalla maanaam lépp loo xam jënd na ko mbaar mii nu nekk ci nag yeeg gileem yi ñu koy upp gileem beeg leen di upp ñuy feex jël seen temps bu ko defee ceebu dijj bi lan lu. añ yi lan lañu sóoraale ganaare ja dàq jàpp yi ak pitax yi ak gambaas yi tabarkalla bu ma limee doo ma mat de waaye xar yi oño yi nga xam ne boo ko laal boo doo ko jàppoo booy laal mu lay topp. loolu soxna moom it gane la gan yi ndax tabarkalla xéewal yi dañ ko war a togg togg goo xam ne tabarkalla yow bi koy xéewloo waroo sonn waroo sonn loolu soxna moom it Kébé def ñu ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla fal cap yàlla na àggale ko yàlla yàgg ko ànd ak moom ci barkeb sëñ Tuubaa xéewal yaa ngi nii daal lépp lu sëriñ bi digle soxna moom it def na ko. sa may ma màggale. yaa ngi dégg lépp loo xam ni li mu war a def ci màggal gi rek soxna moom mi def na ko ndax sëriñ bi bi ne màggal dafa ne sant yàlla te sant yàlla doomu aadama moo présenté yàlla ci kaw suuf ci kaw suuf kon nag moom aaya wa wadda xadi karam naa bandi aadama jooju ma wax juutalu ko lu ma gën a bind lu yàlla li mu bind doomu aadama la ci gën a fonk kon ku fonk sa bopp doo fonk sa naw le te soxna moom fonk gi mu fonk boppam xam gi mu xam boppam moo tax mu fonk ku yàlla bind moo tax tabarkalla jëf ju baax des koy weer nit bu dee def lu baax jëmale ko sëñ Tuubaa des koy weer dañoo xam ne jàmbaar yemalu du yem ak jàmbaar mbukk te surtout sëñ Tuubaa yi ñoo ko njëkk a gërëm ndax ñoom nag nee nañu amul lu sëñ Tuubaa si ànd nañu soxna moom i bisbi bi tabarkalla sëñ Maxtaar Caan sëñ Maxtaar Caan min dénk Xadi Kebe tabarkalla borom melax koo xam ne lu mu jàpp tabarkalla melax la ko jëmee xam ne bëgg soxna Mominatou Kébé jàpp ko lool waaye ni mu def ni mu def rakam ji bu si yemen doy na sëkk waaye bu tabax ci jotee mook soxna Mominatou bu ko jotee jotee mook soxna Mominatou Kébé bu màggal gi jotee mook soxna Mominatou Kébé sëñ Maxtaar Caan jëfam lu nu fàngale soxna soxna Mominatou Kébé soxna Mominatou lu ko waay defal bu la sante ba noppi mu toll la bis boo xam mi ngi jëm ci kaw de te bu dalee sa kaw da nga xam ni yëg nga ni teranga na ko yàlla may gudd fan. kon nag mboolem ku ku fi nekk soxna maam xëri moom Cheikh Mamadou Mouxtada démb leen fu jugee mu yëkkati ay teranga jox nu jox nu joxal leen ma ko soxna Mominatou Kébé ma barkeeloo ko ci bisam bi ndax nag amul lu sëñ Tuubaa te xam na ni jàmbaar la ci yoon wi. na ngeen ma ko santal gërëmal ko te di ko ndokal te xam ne ñu ngi koy encouragé te fi mu teg tànkam maag saa ñang mi ñoo mu yëkkati booli booli beñe yi yëkkati boisson yi tabarkàlla jox nu ko santal nu ko gërëmal nu ko ak bokk yëpp bàyyiwul kenn njaboot Sëñ Tuubaa gépp ñu ngi bëggee soxna Mouminatou Kebe diine jëpp ñu ngi koy bëggee yoonu yëpp ñu ngi koy bëggee te xam ne tamit lu mu def Serigne Bass Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadar woote na woote na waaye jëfam ma fi jiitu ndax moom tabarkàlla bu koor jotee waxuma la mbedd mi waaye fii ba jumaa ja ñëppay ndogu ndax fonk gi bëggam fonk waaye nag baayam ba sëriñ Abdou Khadar ak alaaji Babacar Kebe ñoo àndoon kon nag tabarkàlla ku yokkul da ngaa te te sëriñ Basiru jàmbaaru sëñ Tuubaa la